kon mbokk yi ñu ngi war a jël tey ay 31 ci suuratu yuusuf fi suñu borom di waxe ni falamma sami'at bi makrihin inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi firi la alhamd ñu ngi nii di dund fukkeelu fan ak benn ci chahru ramadan non ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ci loolu bim ci boole wërsëgal ñu ñu daje ci néegu bu yàlla bi di jàng téere borom bi jalla wa ala téere boobu nga xam ni moom la suñu borom wàcc woon ngir buñ ci jaaree am teddaange yu àdduna ak teddaange yu àllaaxira mënuñu caa jaar nag lu dul dañ koo jëkk a xam loolu moo tax wareef la ci bépp jullit mu jéem a jàng téere borom bi toog ga nga toog di ko jàng jaamu yàlla la loolu it ña nga xam ne ñoo koy déglu feneen fu ñu mën a nekk ci kaw suuf nañu xam ne toog ga ñu toog di déglu lii di kaddu borom bi ci seen yéene nekk la cay ndigal ñu jëfe ko la cay tere ñu ba ko la cay gëm-gëm ñu gëm ko ñoo ñit ñu ngi ciy jaamu yàlla gu rëy ñun ñëpp yàlla nañu yàlla boole ci ngërëmam kon ñu ngi nekkoon ci suratu yusuf insha allah ñu bàyyi ak cheikh ousmane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن
ولئن لم يفعل ما آمر واصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم سبحانه وتعالى مني kii di soxna sa mi ngi tuddoon zulayqa falamma sami'at bi makrihinna bam déggee ca pexey jigéen ña arsalat ilayhinna noon la yónnee ca ñoom woolu le- woolu leen wa'tadat lahunna muttakaa mu waajal leen ñeel leen toogu toogukaay yoo xam ni soo ñëwee da ngay mën a suunu suunu mooy nga jël sa loxo teg sa lex daal di samp sa conco wa aatat kulla waxidatin minhunna sikina gannaa ba mu jox képp kenn ci jigéen ña lii di paaka wa qaala tuxruj alayhinna gannaa ba mu ne yuusuf génnal jëm ci jigéen ñi falamma ra'aynahu akbarna bañ demee ba gis yusuf ñu daldi koy màggal wa qatta'na aydiyahunna ñu daldi daggate la nga xam ne moom mooy seen loxo ya wa qulna haasha lillah ñu ne cay màggaay ñel na yàlla sell ñel na yàlla ma haada bashara lii day du nit in haada illa malakun karim kii day nekkul lu dul en malaaka boo xam ne bu tedd rek la qaalat fa zalikunna alladi lumtunnani fiihi mu ne waaw lool day mooy la nga xam ne nekkoon ngeen di ma ca yedde wa laqad raawattuhu an nafsihi fastaasam sàkku naa ko ci bakkanam mu daa di sàkku ak mucc wala in lam yafal ma amuru waaye bu dee deful li ma ko sant day la yusjananna wala yakunanna loola yakunan min assagirin dana doon koo xam ne ni ku ñu tëj ci kaso la ca dana doon koo xam ni ku ñuy doon ci ñañuy suufeel lay bokk yusufa qaala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi mu ne cay yàlla man day dem ca koso ba moo ma gënal la nga xam ne ñang ma cay woo jëme ca wa illa tasrif anni kaydahun su dee ne nag féewala woo ak man seen pexe yi asbu ilayhinna danaa tëb dal seen kaw wa akum min al jahilin ca bu keroogee danaa bokk ca gaayu réer ya mi ngi noonu bokk bi ñu fi mujjee démb kii di soxna premier ministre bi woona yuusufa cig njaaloo yuusufa bañ mu bëgg koo forcé yuusufa daw mu xotti mbubbam ma jëkkër ja bam ñëwee fekk ne histoire bi nam demee suñu borom yàlla indi kawtiif buy wone ne soxna si mooy ki doon agressé yuusufa ci yuusufa ku dëggu la léegi mu ne waaw mbir bi na yem fii nëpp nëppal ko waaye mbir bi génn na pale ba ma ngay wër ci dëkk ba di wër a wër a wër ba dellu si waat ci soxna premier ministre bi te loolu danañu fàttali mbiri suñu yaay Aïcha ka sosoon mbiram mooy Abdullah ibn Ubay naafiq ba bon ba moo dem ci moromi naafiqam ne leen Aysa mii day ak kii nga xam ne nii moom la àndal ci àll ba la shakka ni seen mbir moom leerul ah ñooñu di ko wax di ko joxale joxale ba mbir mi dem ba dugg ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi jot ci ba mu jur fitna bu rëy Aysa nag ma xamu ci dara ba bis la ànd ak ka nga xam ne moom mooy yaayu Mistah mistah jarbaat la woon ci abubakar léegi ñu ànd ci guddi di dem xam nga naar ak ni mu mën a xabaare soxna si fa kastal ak mël fa bi rek daa di ne waay tay sa mistax ay waay mistax yàlla naan ko rooy ay si na ko waay looy wax nii yow mistax di ñëpp ko fekkee badr mu ne ko xanaa déggoo li ma nettali mu ne ko lum la nettali mu nettali si ne Aïcha li dëkk bi di wax Aïcha nag nee na affaire boobu nag moo ma def feebar waaye ala kulli xaal mbokk léeg-léeg ay nit daañu wax ay mbir ci nit du ko yëg waaye mbir ya mën naa dem ba dellu si waat ci moom te it loolu nekkul lu ñu gërëm budul loo xam ne nii da nga koy jublu wax ko mu teggi tuuma boppam xanaa ay wax yu nit ñuy wax rek loolee bu ko tuxal di ko jëmee ci kenn rasul sallallahu alayhi wasallam daraan wax sahaaba yi bu kenn ci ñëw net di ma nettali naan ma diw def na nii def na nii rawatina lu jëm ci man ndax dama bëgg bu may faatu du ma yoral benn julit benn haine buy dox sama diggante ak moom soxna sa ala kulli xaal dégg na histoire bi dégg na ne ni jigéeni dëkk bi yépp moom la ñuy roote ca teen ba moom la ñuy wale ca walu ba moom la ñuy ila axiri ca di ko yedd moom day moo saggan amul lu dul ak jaamam la topp di ko sab mu ne waa baax na di jàngoon nañ démb suñu borom mu ne inna kaydakunna azim seeni pexe lu rëy la mi ngi noonu mu daal di yónni invité jabaru ministre ya jabaru gouverneur ya jabaru général ya mooy jabaru notable yépp mu invité leen ci këram daal di leen di waajal lu mel ne ay genre coussin nga xam ne nii bu la neexee da ngay toog mën ngaa toog toogaay mën ngaa suuru mën ngaa ilaaxiri léegi indi leen ay fruits yu ñuy dagg indi leen aw yàpp wu ñuy dagg ku nekk nag mu jox la be ab paaka ba ñépp nekk ci seen l'aise mu daal di tëbum neex rek benn bunt mu ne yuusuf te ñoom ñépp ñi nga doon dégg turu yuusuf ku ne ci ñoom bëgg naa xam yuusuf mii tax ndaw si dafa may kan yuusuf génnal ci ñoom bi yusuf ne tëll ci bunt bi wax naa la ci tafsir bi passé yeneen ci bàyyi salaatu wasalaam nee na daanaka genn wàllu taaru doomu aadama bi yàlla da koo jagleel bi mu ne tëll soxna yépp na jàkk ak yusufa ñoom ñépp àndandoo ne sell ñeel na yàlla ah kii ñu gis bi du nit kii malaaka la fa ñuy nekk naan kii du kii malaaka nangam ndekete fat càmma ngay dagg baaraam ba fat njaaye ngay xotti kii ba ku nekk paaka bi nga yor talutoo ko yaa nga am teqale ko su sago ca mbokk noonu la doomu aadama su amee lu ko attiré de trop day fàtte boppam mi ngi noonu mas naa dégg xalif général dem tëggkatu sabar ci Sénégal mu ne man suma benn journaliste bi di ko laaj waaw ndax tëgg yi dana faj mu ne ko waaw day faj xanaa gisoon ndëpp yi dañuy tëggal nit ñi ñuy fecc yi seen wér mu ne man su ma nekkee saal di ba nekk sama digg tëgg nee na danaa toll foo xam ne paaka sax boo ma ko jamono du ma ko yëg te noonu mu diggee galeen mi nga noonu xam ngeen lu dul sa mbir lu sa mbir waaye da am ñu dégg galeen am ñu dégg xalam am ñu dégg lu nekk waaye mbokk sahabatul kiram noonu lañ déggee woon alxuraan yonent bi alayhi salaam jóge na ci benn xare ñu am fu ñu campé bi ñu campé mu wax ñaar ci ndaw waa ansaar ne leen garde leen armée bi ñoom ñu toog garde armée bi yonent bi ak saxaabaam di nelaw ñuy def tour de rôle bu kiy nelawee quelque temps yéeg ci des mu nelaw bi kenn ki nelaw kenn ki taxaw di garde mu daal di am ci ñiñ doon xeexal koo xam ne daw na ñëw di def si armée l'islam ndax dañoo rey ay mbokkam mu ñëw pour bëgg a rey ci jullit ñi bi mu ñëwee gis waa jaa ngi taxaw mu daal di jël benn fitt dóor ko bi mu ko dóoree fitt bi jeune ansar bi dindi si fitt bi sànni continuer taxawoo di dinaa fi la mu dóor ko beneen ba ci troisième bi la mbokkam bi yow yow rek gis ko ak deret ji mu ne ko yow lii lan la mu ne ko ah am na ku nekk fii day dima sànni ay fit mu ne ko lu tax yeewoo ma mu ne ko maa ngi woon ci suratul kahf vraiment mënu ma ko woon dagg yaa ngi dégg mu ne mënul woon a dagg suratul kahf bu mu doon tari mënu ko woon dagg gannaaw duñ ko dóoree ñetti fit yaa ngi dégg ñii tamit nit ñi yéemoo ci yusufa xamatuñu lu ñuy def ak paaka yi ñor ndekete ñi ngi jàpp ñi ngi xolli pom yaa kii ya ndekete ñi ngi dagg seen loxo ci yëguñu ko léegi bi nga xamee ne loolu am na soxna si ca loolu it day jàng ni xeet yu jëkk yépp xamoon nañu ne malaaka lu taaru la doonte ne mbokk malaaka li tax nit ñi xam taaram su daan ñëw ci doomu aadama bu daan ñëw di feeñu doomu aadama melokaanu nit lay yor mais nit attanul gis malaaka moo tax suñu borom mu ne ashahidu xalqahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ci dundam ñaari yoon la mës a gis jibril benn ba ci suuf dafa teqali ko ak sagoom fekk jibril saddal ufuq fu mu xool penkook soow yépp du gis lu dul jibril beneen ba mooy bi muy def isra wal mi'raj waaye yonent yu bari mës ñoo gis malaaka ni ko yàlla bindee amaa nag bari woon na di ñëw ci melokaan nit ku ñu xamul wala ku ñu xam comme daan jëkk a jël comme daan gën a bëri jël melokaanam mooy benn waay ba taaru bu ñu daan wax dixiyatul kale bi dixiya dafa taaru woon ba nga xamee ne nii su ma san di dox booba jukko yàqoogul waaye jigéen ñi dañ daan génn di ko dogale di ko seetaan ba mujj radiallahu anhu bu ma san di génn day muur kanamam gépp ba mu des ay bëtam ndax bañ a fitnaal jigéen ñi gis ngeen ala kulli xaal kon noonu malaaka bi feeñu doomu aadama noonu lay demee léegi nag soxna seen yusufa dellul yusufa dellul mu ne waa léegi nag gaa yi yéen yéen soxna yi di kii ngeen ma doon yeddi mu ne waaw mu ne waaw xool leen seen loxo yi ku nekk nag dooga ñu caxu dégg dégg ku nekk moom ñëpp dagg nañ seen loxo mu ne man dagg ma sama loxo yaa ngi dégg lenn dong laa ko sant mooy li ngeen may yedde mooy dama na ko mu sàkk ko ci moom te xam ngeen kii ku dëkk ak moom da ngay gis ne da nga am problème léegi nag su deful li ma koy sant daañ ko tëj ci kasa bi te daañ ko toroxal te mbokk kan mooy wax mooy li ñuy tëdd xanaa mooy deuxième dame lañ koy wax ndax mooy jamono premier ministre bi te ni ma la ko waxee jamono yooyu premier ministre bi mooy régné mi ngi noonu loolu it muy wone ne mbokk bokk na ci chance am réew seen président am jabar ju baax ndax jabar dafay am influence ci ci ci ci président am na fii Sénégal gi ay ministres yu def erreur ba toll ne bañ leen reconduiraate ñu naan ñi ngi sant madame première dame ci kooku c'est très grave ndax première dame n'a rien à voir ak composition gouvernement waaye ku xam ku nekk da nga xam ni jabaru président jabaru kum mën a doon a yem jigéen day am influence ci jëkkëram bu dul yàlla da ko sàmm mën na koo tabbal ci loxooru yaa ngi dégg moo tax soxna si ne lii ñër attekat yi ak ordre yi benn rek a am dana def li ma ko sant wala da ngeen dégg ne tëj nañ ko ci kaso bi da ngeen dégg na toroxal nañ ko waaye loolu bi mu amee yusuf alayhi salaam daa di ne ay sama boroom man day dem tëdd ca kaso ba moo ma gënal lii nga xam ne dañ ma ci woo jëmi yàlla day bul ma seetaan mukk may dugg ci njaaloo dem tëdd kaso moo ma ko gënal walla way yéen jeunes yi def leen loolu ab yóbbal def leen loolu ab yóbbal bu leen dara jaral ngeen di dem dugg ci ak njaaloo mi ngi noonu ak a bari tey ay secrétaire yoo xam ni seeni directeur influencé nañ ci ñoom ba woo leen ci ak njaaloo ñu ànd ak ñoom du ne dañoo bëgg njaaloo wala dañoo bëgg directeur bi waaye xam ne ni suñu ko bañalee mu licencier leen ñu ragal ñàkk seen salaire tax ñu ànd ak moom ci loolu mbokk loolu c'est très grave yàlla la nattoo liggéey bi boo ko bàyyee te yàlla tax yàlla dana la wutal lu ko gën téeméer yoon ca ak lu ca mën a joddoo sama mbokk Mokhtar Ndiaye bi nekk 24 yal na yàlla dolli ko yiw ñettali na ma ne benn waayam ci benn dëkk boo xamee ni nii ku fa njaaloo dañ lay rey nee na ñëw ne na ko sëñ bi man day dama am jafe-jafe mu ne ko lu xew mu ne sama patron bu jigéen bi may dawalal ah ca mag la sax am na ay doom yu mag dafa ñëw ne ma fokk dana ànd ak moom maxtaan na ko noo def mu ne ko lu ma def dama ànd ak moom mu ne ko yow en tant que doomu jullit mu ne ko su ma ko deful mu mu wax ko ñu jàpp mu tëj mu ca kaso bi wala doomi rey ma loolu dama ànd ak moom yaa ngi dégg mais mbokk loolu déedéet kooku ngëmam moo toll foofu ngëmam moo toll foofu waaye doon na préféré ndaw si jiñ ko njaaloo ñu yóbbu ko tëj ko ca kaso ba mi ngi noonu maadaama amul ay ceema liñ ko man rek mooy tëj ko waaye muy moo gën mu dem dugg ci musiba boobu nga xam ne dugg na ci almuhim loolu ñu bàyyi ci xel bu baax waaye yuusufa bi muy naan yàlla soo ma bàyyee su su tëdd kasaw moo ma gënal daf cee ànd nag ne yàlla nag soo ma jàppalewul ay teqaleme ak ñoom day danaa masa daanu ci ñoom ca bokk ci gaa yu réer ca mbokk pexe jigéen ngi noonu da ngay ñaan yàlla musul la ci yonente bi alayhi salaam daana wax ne bàyyiwuma sama gannaaw fitna ñeen góor ñi bu mel ni jigéen ñi daana wax ittaqu dunya wattaqu nisa ragal leen adduna ca ragal leen da nga xam ne muy jigéen wéet ak jigéen ñu taaru jaxasoog ay jigéen loolu dafa mën a yàq yonente bi alayhi salaam daana wax ne musuma gis ñu ñàkk diina ba pare mën a daaneel borom xel mu réy mu nekk mi ngi noonu ca mooy yéen ci ku mel ni yéen jigéen ñi mi ngi noonu ala kulli xaal bépp góor bàyyi xel ci loolu ñu ngi ñaan yàlla suñu jigéen yàlla laabal leen ba duñ pexe lu bon waaye ñu ngi ñaan yàlla it yal na yàlla musal ñu ci pexe jigéen buy pexe mi ngi noonu Cheikh Ousmane. barakallahu fiikum suñu boroom jalla wa ala mu ni fastajaaba lahu rabbu noon la ko wuyoo boroomam fa sarafa anhu kaydahunna mu féewaleeg moom pexe yi soxna ya doon pexe innahu huwa samiu alim moom mooy aji dégg lépp aji xam lépp ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات gannaaw ba la feeñ ñeel autorité dëkk ba gannaaw bañ gisee kawteef ya la yasjununnahu xatta xiin yuusufa mii day daañ ko tëj ba ci jëmmi jamono wa daxala maahu sijna fatayaan noonu la dugge ca kaso ba ànd ak moom ñaar ci ndaw yi dëkk ba qaala ahaduhuma inni araani asiru xamra kenn ca ñoom ñam bokkaloon kaso ba ne ko man day dama gis ci gént maa ngi nekk di nal la nga xam ne nii moom mooy sangara pour di ko defar wa qaala al axar keneen ki ne ko inni araani axmilu fawqa rasi xubza mu ne man day damaa gis ci samay gént maa ngi yenu ci sama kaw bopp lii di mburu taakulu tayru minhu ay picc ñëw di lekk ci mburu moomee nabbina bi ta'wili xabaare ñu loole lan lay firi inna naraaka min almuhsinin ñun day gis nañ la nga bokk ci ñuy rafetal qaala laa ya'tikuma ta'amun turzaqanihi mu ne du leen dikkal mukk ñam boo xam ne dañ leen cay wërsëgale illa nabbatukuma bi ta'wili lu dul ma xabaare leen lan mooy firi seen gént yi qabla an ya'tiyakuma jiitu mu leen di dikkal ñam bi zalikuma mimma allamani rabbi loolu nekk na ñeel leen ma leen koy xamal ci ne lii day sama borom yàlla moo ma ko xamal inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah man day dama bàyyi yoonu bépp xeet boo xam ne gëmuñu yàlla wa hum bil axirati hum kafirun te ñoom day alaxira dañoo nekk di ko weddi mi ngi noonu mbokku yusuf alayhi salaam ñaan na ñaan boo xam ni bépp jeune war na koo gànnaayoo te yàlla dem tëdd ca kaso moo ma gënal dem di dugg ci njaaloo suñu borom yàlla nee na nii laa ko wuyoo daa di koy musal te pexe ya nga xam ni soxna ya ña ngi ko doon pexe ca li suñu borom wax ci seeni pexe du ne rek ne soxna su buur bi rek moo sonnoon ci jot ci yuusufa waaye soxnay notaabale it bañ ñoom bañ ñëwee ba gis yuusufa kenn mënatu la nelaw ci dëkk bi ngir yuusufa xam naa ne alhamdulilah keroog portable xewul na kon na yu message ak i vocal yaa ngi dégg mi ngi noonu ku nekk ci ñoom yaa ngi def pexe nan ngay mën a wooyu yuusufa ci yow waaye suñu borom yàlla mu ne fegal naa ko seen pexe mboola seenu ndax yàlla yusuf rek nga koy defal mu ne déedéet innahu huwa samiul alim ba ila yawmi din képp koo xam ne ragal nga pexey aji ku lay pexeel ñaanal yàlla mu musal la ci ay pexeem ay yow soxna si bul jóg mukk ne sama wujj bii dama yëg ne daf may liggéey ko nit man naa dem ut anti liggéey wala mu liggéey ko moom tamit mi ngi noonu képp koo xamee ne nii mi ngi lay jóg nga yëg ne mi ngi pexe jëme ci yow ñaanal borom bi yàlla rek jalla wa ala amul kenn ku mën a pexe pexe bu sotti lu dul ci yàlla ndax laa xawla wala quwata illa billah lii la julit war a gëm kenn amul pexe mi ngi noonu ba wëlbati dara kenn amul pexe ba jot ci dara lu dul yàlla laa xawla wala quwata illa billah lii la julit di gànnaayoo ci lépp lu mu ragal ci lépp lu mu yaakaar laa xawla wala quwata illa billah kenn amul pexe wala kattan ku dul yàlla léegi yàlla nangu na ñaanam ah autorité dëkk bi nag toog gis ne daal yuusuf bi mi ngi nekk menace ci dëkk bi ñoom ñépp ku nekk sa jabar ba mu nibbisee dagg nay loxoom ca xam nañ ne gis gañ gis yusufa tax ñu ne nag kii dafa nekk danger public lañ ñuy def daal mooy nañ ko jël dugal ci kaso bi ba baa ñuy xool mbiram yaa ngi dégg mën na am na soxna su premier ministre ba mucc ci ndax jëkkëram moo jiite gouvernement bi ca waxoon na yusufa soo deful dana la tëj kaso looloo tax gaa yi décidé ni kii daal nañ ko tëj ci kaso bi ba baa ñuy xool ni ñuy def ak moom ah ñu daal di yóbbu yusuf yusufa ca kaso ba jamono nag bis bi ñuy tëj yusufa ca kaso ba mu am benn problème bu am ci biir palais ba mooy buur bi reer na ba pare commencé di jalgati jalgati waaj a dee ñu naa ki dañ ko am empoisonné gaa yi fexe fexe fexe fexe fexe ba suufi buur bi léegi nag fan la poison bi jóge ndax ki nga xam ne moo doon defar mburu mi buur bi reere wala ki ko doon jox sàngara bi muy naan ñoom ñaar ñëpp ñu jàpp leen tëj ci biir kaso bi ñu ànd ak yusufa ca kaso ba te it loolu mbokk mu lay jàngal du ko dégg tëj nañ ko kaso rek dafa def dara déedéet mbokk kaso yi mën ngaa wax ne au moins ceeru ñi fa dugg dañ leen a toll ngi noonu donte na ñun suñu aada suñ gisee ku yàgg kaso génn waaye kii kaso la nekkoon dañ koy daal di xeeb comme li soxna si wax dana dem kaso dañ ko xeeb waaye mbokk déedéet kaso bari nañu nekk kaso nekk fa ak jaamu yàlla gu sell wallahi suñu mbokk ibrahima aan biñ jàppandooloon ak ki nga xamee ni muy alil badara ndaw nettali na ma gis na kaso ba ay jaamu ko fi yàlla yoo xam ne dañ koo yéem ñoo xam ne deux heures du matin la ñuy yew ay paa taxaw di jàng alquran ba fajar di wane melokaan bu bu bu bu rafet mi ngi noonu yéen ñëpp xam ngeen ni Yusufa moom it tëj nañ ko kaso ca mi ngi nekkoon koo xam ne nii dara da- dara topp ko kon ñoom ñaar dugg nañ ca kaso ba léegi ñu nekke noonu di xaar la nga xam ne mooy jugement biñ leen di war a def donte ne jugement it du mooy atte soo demoon ci ñi nga xam ne xatta acte woowu ñu sax lislaam suñu loi lay yi sax ak njub gi ci nekk kës néew ñii di acte dañ naan nous disons le droit mais nous ne rendons pas la justice dañ naan daal lii la loi bi wax waa ji ñëw na am na ñu ko indi accuse ko indi seeni preuve ñu naa kon loi bi lii la wax ci moom ndax nag loolu loi bi teg ci moom ndax yeeyoo na ko wala yeeyoowu ko loolu moom yàlla moo xam yéen ñëpp yéen a ngi fekkee procès bi gën a siiw bu am ci Sénégal ci sunu fanweeri at yi boog jàpp naa muy procès Alioune Badara Ndao nan lañ ko jugé keroog bi verdict yi di génn procureur de la république dafa taxaw ne kii il est coupable nañ ko tëj fanweeri ati kaso trente ans de prison di loolu la wax de juge bi moom wëlbati ko xool na non non non kii deful dara nañ ko bàyyi mu nibbi këram léegi dañuy xool su doon procureur bi moo nekk place juge bi kon lu ñuy def mooy dañ koy tëj trente ans de kaso loolu kon mbokk la tax ñu jublu ci di ci insisté rek bu leen jàpp mukk kuñ jàpp ne tëj nañ ko ci kaso bi ngeen jàpp ne dafa def dara déedéet bari na ñu ñu tëj seen giiru dund bari na ñu ñu jàpp kondam ne leen rey leen ca wallahi defuñu dara kon ñu dellu ci kaso ba yusufa nekk na fa ak ñoom ay fan ñoom ñu gis comportement yusufa ni yusufa dale ni mu leen di jàppale ni mu leen di taxawoo yàlla def benn guddi ñoom ñaar ñëpp ñu gént bi ñu xëyee ñu ne yusufa kenn ki ne yusufa ñun day man de dama gént biig maa ngi nekk ci palais bi di préparer en sangara bi ma nar a defaral buur bi asiru xamro bon keneen ki na ko man de li ma gént mooy dama gént man maa ngi yenu am mburu ay picc di ma wër di lekk ci mburu mi léegi nag dañoo bëgg nga leeralal ñu suñu gént gi waay ndax ñun gis nañu ne yow yaa ngi bokk ci ñiy rafetal te mbokk rafetal googu la ko suñu borom séedaloon ba mu nekkee ca kër ki ko jëndoon walamma balaga ashudda ataynaahu xukman wa ilma wa kazalika najzi al muhsinin yusufa en tant que booy mi ngi rafetal ci kër ñamu nekkal rafetal jëm ci ñëpp suñu borom boole ko minal muhsinin bi mu nekkee ci biir kaso bi suñu borom tudd ko ni minal muhsinin bu demee ba nekk buur ba ay frère am ñëw ba histoire ba am digganteem ak ñoom ba mu jàpp Binyamin lan la ko frère yi di seedeel ay buur xoolal ku la neex ci ñun nga jël ko ndax ñun day inna naraka minal muhsinin ñun li ñu jokkoog yow yépp gis nañu yow koy rafetal nga lii suñu borom yàlla wax ñu dañuy jàngal ne ay yow julit soo nekkee ci jamonoy coono jéemal rafetal sa kamtalal kattan soo nekkee jamonoy bànneex rafetalal su dee boor nga rafetalal bu ñu la notee rafetalal foo mën a nekk ci kaw suuf rafetalal te xam ne yàlla du neenal la nga xam ne mooy payu ñee rafetal ay yow yuusuf gis nañ la ci ñii rafetal loolu nag ca la yuusufa nag am occasion lim doon waat ba mu dajeek ñoom ci yépp pour nag jàllale ko ca mooy bëggoon na leen a woo ci diine doon xaar occasion te it yow ndawal julit xamal loolu suñu borom nee na waddu ila sabili rabbika bil xikma heure boo jógee di waaraate teg ko ci xikma del xool toujours ana ban place loo gën a yey ci nga waaraate fa ana ban occasion ci ban temps nga gën a yey pour waaraate fa loole boo ko jaawale rek sa waaraate mën na échec waaye comme yuusufa ñi ñëw toog nañu soxlaal ko na ko yuusufa dañoo bëgg nga firil ñu suñu gént gi yuusufa daal di ci profité ne leen xaar leen rek ah balaa añ bee ñëw ci misaal balaa añ bee ñëw danaa leen ah firil la nga xam ne mooy seen gént gi ndax man loolu yàlla moo ma ko xamal ca it jurit loolu ngay xam la malaaka yi waxoon suñu boroom mooy laa ilma lana illa ma allamtana xamuñu lu dul loo ñu xamal yuusufa it mu ne lii yàlla ma ko xamal ñu koy tudde ilmul la dunni xam-xam la bu jóge ci yàlla ndax yuusufa demul ci kenn mu koy jàngal lu muy firee gént yàlla ko ko xamal directement sama borom yàlla moo ma ko xamal waaye gis ngeen yéen ni ma bokkal kaso bi man dama bàyyi yoonu ñi nga xam ne gëmuñu ya gë- gëmuñu yàlla mi ngi noonu ca it gëmuñu laaxira ca booba Égypte googu ñoom ñépp la ci ëpp da ngay gis ne dañ doon bokkaale yàlla moo tax Yuusuf ne gëmuñu yàlla ndax yàlla musul yónni benn yonent yonent bi di ñëw wax nit ñi kaay leen ngeen gëm yàlla am na liñ daan tudde ñàkk gëm yàlla yépp mooy ñàkk ah wiital yàlla jalla waala te yàlla ku ko wiitalul gëmoo ko même boo xamee ne am na même boo xam ne moo bind asamaan yi suuf même boo xamee ne moo la bind ila axiri mais maadaama wéetaloo ko gëmoo yàlla mi ngi noonu kon dama bàyyi yoonu ñi nga xam ne gëmuñu yàlla te gëmuñu alaxira mi ngi noonu mbokk lii mooy genn wàllu wàllu diine gi diine mbokk mooy lan mooy bàyyi doog a jàpp te mooy laa ilaha illa allah laa ilaha kenn yeewul ñu koy jaamu kon dégagé nga tout illallah saxal kenn muy yàlla li way kaddu la ilaha illallah mi ngi noonu Cheikh Ousmane
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون barakallahu fikum suñu borom mu ne Yusuf alayhi salaam ne wattabaatu millata abai man day dama topp sama yoonu baay ya Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kaana lana an nushrika billahi min shay'in yellul ci ñun ñuy bokkaale ci yàlla ci dara zalika min fadlillahi alayna loolu di ci ngëneelu yàlla la ci ñun wa ala nnaasi ak ci nit ñi walakin akthara nnaasi la yashkurun waaye li ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom yaa saahibayi sijin ay yéen sama àndandoo ci kaso bi a arbaabu mutafarriquun ama ndox ay yàlla yu teqali ko xayrun amillahu alwahidu alqahar mi ngi noonu ay borom yu teqali ko ndax ñoo gën wala yàlla mi nga xam ne mooy kenn ki not lépp ma taabuduuna min duuni nekku leen di jaamu gannaaw yàlla illa asmaan sammaytumuha lu dul tur yoo xam ne yéen ñii yéen a ko ko tudde antum wa abaaukum yéen ak si seeni baay ma anzala allahu biha min sultaan yàlla wàccewul ci loolu benn lay bu ngeen di mën a sukkandiku inil xukma illa lillah nekkul ab atte di dogal lu dul ci yàllay kese ñeel yàllay kese amara an laa taabudu illa iyaah ca yàlla moomu day daa digle ne bu ñu jaamu ku dul moom ذلك دين القيم لول رك موي دين جو جبجي ولكن اكثر الناس لا يعلمون واي لي اوب تي ني ñom nekku ñu di xam ñi non mbokk yusuf wax na leen man deñ na ci lépp loo xam ni ak kéefér ak bokkaale ah léegi nag yusuf luy sa diine mooy man maa ngi topp sama diine bàyyi ca mbokk bokkoon na yéesér yépp lañ doon laye mooy ñun ñi ngi nekk suñu diine yi bàyyi ndax loolu dafa firi ne topp sa diine yi bàyyi daa baaxul déedéet mooy ñoom seen bàyyi dañoo réeroon ñu topp ci seen gannaaw réer googee ñu ngi noonu comme naka yàlla subhanahu wa taala di waxe ci ay yu dul jeex waaye kay bu dee sa bàyyi ma nga jaaroon fa neex yàlla jalla wa ala yow da ngay gis ne toppoo sa bàyyi waaye yaa ngi toppul la sa bàyyi nekkoon moo tax yusufa waxul ne wattabaatu abai dama topp samay bàyyi waaye dama topp millata abai mooy diina ji sama bàyyi nekkoon diina jooju laa topp bàyyi yooyu nag mooy kan ma ibrahim ishaq yaqub wax nañ leen ba ñuy dal saar bi yonent bi al islam sahaaba yi laajoon nañ ko ku gën a tedd ci nit ñi mu ne leen inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd may ki gën a ragal yàlla ñu ne ko leen laaju ñu loolu ci famille la ñuy wax mu ne leen bu dee looloo kon yusufa la ndax yusufa mooy yonent baayam yonent maamam yonent baay maamam yonent baay yooyu la tegale mu ne samay baay naam ndax baay moo jur baay baay jur baay ñëpp baay lañ leen di tudde ma kaana lana an nushrik billah mu ne ñun day yellul ci ñuy bokkaaleeg yàlla ci dara te lii mooy ngëneel bi yàlla defal doomu aadama yi waaye li ëpp ci nit ñi duñu sant mbokk xam leen ki ëpp xéewal ci kaw suuf mooy kan mooy kiy jaamu yàlla bokkaali ko ak dara suñu borom mu ne alladina amanu walam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun suñu borom ne la ñii rek ñoo am sécurité ñoo am jàmm mi ngi noonu wallahi maa ngi wax ak tey rek koo xam ne nii ñu ngi wax ci benn couple couple boo xam ne niveau bi ñu toll ci Sénégal néew na ko ko toll ci ñoom ñu wax rek jafe-jafe yi ñuy dund ma ne ko xam nga lu waral jafe-jafe yi mu ne waaw ma ne ko noteel la nga xam ne ni mooy aya 123 ba aya 126 ci suratu taaha mi ngi noonu suñu borom yàlla moo décidé nee na suñu maam aadama demal kaw suuf danaa la yónnee ak njub yaag sa njaboot bu boobaa fa man ittaba hudaaya fala yadil wala yashqa ko topp sama njub du riir ci daraam ci mbiri addunaam du texee di it du doon adduna du texee di it allaxira waaye wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka képp koo xamee ne nii war nga gannaaw sama waaraate sa dund dana xat ah suñ borom bu dee milliardaire nag mu ne yaa xamul mi ngi dund dund gu xat bu dee président it yaa xamul mi ngi dund dund gu xat xat xatu xol boo xam ne kum waxal biiram nga xam ne kii dafa xat mi ngi noonu da ngay gis yaakaar na am na ki jiitu madonna xam nga madonna mooy soxna si gën a doy waar ci kaw suuf mu nga américain la am na ku ko jiite woon xaw ma Mireille nan yaakaar naa monsieur l'inspecteur xam nga ko Mireille xaw ma nan ci chanteur yi gënoon a kawe adduna yépp xam ko ah Mireille Marilyn jazakallahu xayran nekkoon koo xam ne adduna yépp ko xamoon ci siiwaayam ci lépp ku ne bëgg koo jokkoon benn bis la xëy xaru daa di ne lan daa di ne adduna bi amu fi place am ndax xam na ni nit ñi dañ koo def rek comme ab marionnette bu ñuy foy mais nit ñi bëgguñu ko bokk loolu lu mujjee xaru lu mujjee Madonna ci boppam liir naa benn journal liñ ko titré mooy star bi nga xam ne jot biddiw yi moo gën a yomb jot ko mais article bi ñu def ci moom gars yi nga xam ne ñooy management yi ko wër dañ naan léeg-léeg day toog ay guddi di jooy mais dañ koy laaj lan la lan la mais du du nangoo wax lu mu doon ci koo xam ne bu dee ay milliards lim ci gàddu kenn xamul nu mu toll bu nee tëll Amérique ñëpp di xam mais day fanaan ay guddi di jooy mbokk ngeen xam ne kon li yàlla wax du deñ al fadlullah fadlul bi gën a màgg bu yàlla defal ay jaamam mu boole la nga gëm ko bokkaale woo ko dara xam ne li nii lu dul loolu ay mbiru àdduna rek buy jeex la ki yor mbir yépp mooy sa borom jàll wa ala loolu moo tax borom ulaayka lahumul amn wa hum muhtadun waaye li ëpp ci nit ñi dañu sant lu tax mooy li ëpp ci nit ñi xamuñu ndax kat cantaaku ñi di fi jeex de nit ñaa ngi sant de waaye nag kan la ñuy sant suñu borom bi mu naan li ëpp ci nit ñi duñu sant ndax da caa jublu duñu sant Ibrahim déedéet ndax duñu sant Moussa ndax duñu sant Muhammad déedéet ay duñu sant seen borom jalla wa ala ni ngi noonu lan mooy sant yàlla sant yàlla mooy nga yëg ne bépp xéewal ci moom la jógee nga yëg ne xéewal yooyu da nga ko war a delloo fa ko neex nga yëg ne da nga ko ca war a tagg ca soo làmmiñ jaamu ko wéetal ko lii mooy sant yàlla loolu la waxoon Muaz ibn Jabal na ko ay Muaz maa ngi lay dénk foo jullee ba pare deel wax allahuma a inni ala zikrik wa ala shukrik wa ala husni ibadik e yàlla de yàlla nag ma jàppale ci ma lay fàttali ko fu mu mën a toll di la sant nam yeyoo di la jaamu jaamu gu sell aksar annaas la yashkurun léegi ñu dellu ci kaso ba yusuf ne ay yéen sama ñi ma bokkal kaso bi ndax ki am borom yu bëri yaakaar nangam dangam nangam bu dul jeex ndax kooku dana yem ak ki nga xam ne moom benn yàlla rek la un yaakaar suñu borom na ko wax ci beneen aaya ndax ki nga xam ne dafa nekk am ay yàlla yoo xam ne mutashakisuun dañoo juyoo dana yem ak ki nga xam ne benn buur rek la yor mi ngi noonu ca mbokk la chaque ne jaam bi nga xam ne dafa am ay sang yu bari sang yu jubóowuñu seen biir bu kii xëyee na ko rootil keneen xëy na ko demal nga daal di taxani keneen xëy na ko nangam nangam kooku coono dana ko dikkal loolu it mi ngi suñu borom mi ngi koy misaal ci ki yaakaar leneen lu dul yàlla amul kenn kuy yaakaar leneen lu dul yàlla yem ca moom kese koo gis muy yaakaar leneen lu dul yàlla rek leneen ak leneen ak leneen la boole jullit kese mooy jaamu yàlla kese du ko bokkaale dara yuusufa na leen xam leen ne lii ngeen di jaamu du dara lu dul ay tur tur yoo xam ne yéene ko créé yéen ak seeni baay waaye yàlla indiwu ci benn benn lay moo ko création boobu topp na diine yi topp diine yi ba yëg ci suñu diine tey bi lislaam demee ba yàgg nit ñi créé nañ ay tur masalan ndax yéen a ngi dégg xutbu da ngeen dégg xutbu zaman nga xam ngeen lu xutbu xutbu dañ ne mooy ki dox diggante nit ñi ak yàlla xutbu zaman bu nekk amul benn jaamu yàlla buy jóge ci nit ñi lu dul ci moom lay jaar doog a dem ci yàlla amul luy jóge ci yàlla ci xéewal lu dul ci moom lay jaar doog a ñëw ci nit ñi mu mel na lantinoor xuma ndax gën a dogaat xam ne luy lantinoor ala kulli xaal ñoo dox diggante nit ñi ak yàlla mooy xutbu zaman ma ndax gars yi loolu nangu ngeen ko déedéet bala nga ne allahuma balaa yàlla dégg xutbu mooy dégg doog a jox yàlla nangu ngeen loolu déedéet te suñu loolu kon amul yéen a ngi dégg cheikh dégg leen cheikh ba jamono yéen a ngi dégg koy koy wax naan waa jigéen yu ñu seexal maa war a jiite ndax cheikh laa am déet cheikh mbokk fan la cheikh jóge cheikh day arab xamoon na ko mooy lan wa abuna cheikhun kabir di jàngeen ko ci alquran dee ngeen saara tayit lu mu waxoon ana ajuzun wa hada baali cheikh cheikh mooy kon mooy ku magi am déet mi ngi noonu imam bokk na ci cheikh yi yéen a ngi mi ngi bi jaww macha allah cheikh cheikh mooy cheikh waaye ñoom cheikh bi ñuy wax bokkul ak cheikh bi làmmiñu arab am cheikh am na kilifa gu mag ci Sénégal mas na mbooloo mu rëy mu ne waaw bàyyi leen nag ku jóg rek ñu ne ko seexal nañ la ku jóg ñu ne ko seexal nañ la waaye seex soo mënul fu sa taalibi dee ci kaw suuf nga dew teeyoo ko bu ruux gi génnee nga ànd ak malaaka yi bu ñu demee bàmmeel bu ñu koy laaj nga taxaw tontu ko ëllëg nga jàpp ci loxoom jéggil ko siraat kenn waru laa wax cheikh rek gaa yi fetto ko fetto ko fetto ko lii mooy cheikh mi nga noonu nee nañ am na ñeneen ñu ci dolli ne nit ki toog fi nga toog ci kaw suuf di gis sànqalee ñay dox suufu arash loolu sax taxul nga yéeg ci garaatu cheikh mbokk yooyu ñoo ko créé de ñoo ko créé asmaun sammaytumuha noonu la ñu créé ay abdaan ak ay du kenn xamul yaa ngi dégg sammaytumuha antum wa abaukum yàlla wàcciwu ci benn lay ma anzal allahu biha min sultaan gannaaw ba nag yusufa ne leen inni l xukmu illa lillah yàlla rek mooy atte ci ay jaamam lu ko neex mbokk yàlla niñ ko war a jaamoo moom kese noonu it lañu war a xamee ne jaamu gi moo ko war a atte na doon xam nañu xamuñu masalan tey yow mi dem makka wala demoo makka it ngay gis da ngay gis benn xeer bu ñëw xajarul aswad nga gis nit ñi rey seen bopp pour lan pour fóon ko am déet nga jóge fa dem ca jamra ya ay xeer lañu comme xajarul aswad nit ñi rey seen bopp pour sànni ko ay xeer pourquoi ñuy fóon xajarul aswad yàlla moo ko atte pourquoi ñuy sànni xeer jamra yi yàlla moo ko atte jeex na comprendre nga comprendre lu suñu borom yàlla mu ne balaa kenn jàpp balaa kenn julli ci yéen na jàpp ah yàlla même bu ma duggoon ci dus bi sangu juróom ñaari yoon ak saabu dara suñu borom mu ne laa bëggoon de fokk nga jàpp pour laab du loolu la yàlla wax de d'accord loolu sax après mën nga comprendre sax jàpp day day raxasul ay cër waaye suñu borom mu ne soo amul loo jàppi jëlal say loxo teg ci suuf lëmas sa kanam lëmas say loxo ndax loolu mën nañ ko comprendre mën nañu ko comprendre waaye yàlla ko atte inil xukmu illa lillah loolu it mbokk la war a am palais de justice palais présidentiel kër gi ngeen nekk quartier bi lépp lu mën a doon dañu war a xam ne inil xukmu illa lillah tëral ay loi ci yàlla lay war a jógee bépp loi bu safaanoog loi yu yàlla tëral jullit waru koo jëfe yàlla moomu nag moo digle bu ñu jaamu ko dal moom amara allah taabudu illa iya jaamu googee muhammad bokku ci keneen bokku ci benn waaye ñëw na ci yonent yàlla bi na ko danaa tukki suba bu soobee yàlla soob la mu ne ko a jaaltini lillahi niddan ndax da nga may boole ci ñi ngay bokkaaleeg yàlla ah waxal bu soobee yàlla ci beneen riwaaya mu ne ko waxal bu soobee yàlla gannaaw ba mu soob la waaye bul wax yàlla ak yow amara allah taabudu illa iya suñu borom nag mu ni lii mooy diina bu jub diina tawxid waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu loolu mbokk li ëpp ci nit ñi xamuñu diine xamuñu tawxid loolu moo tax ba bum la nax ñii puuk réewu ne daje ba 3 millions daje na waaw gaa yi daje bay daje fële ci Inde loolu it dafay ñëw kenn xamul plus de 100 millions ci Indiens yi daañ dem dajale seen gange boobu ndax tax nañu nekk ci dëgg déedéet aksara naas la la la yaalamuun sunu bay aadama bu yàlla dajalee njabootam ñëpp ñun ñëpp te la ñuy bokk dana ne ko aadama jëlal cëru safara ci sa njaboot mu ne ko yàlla lan mooy cëru safara sama njaboot mu ne ko junni bu nekk juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci safara lañ jëm mi ngi noonu kon ñan ñoo xam ci jaamu yàlla yi un sur mille bu dee mille milliards ñoo dajee alaxira neuf cent quatre-vingt-dix-neuf milliards yépp ñiti safara lañu aksara naasi laa yaalamuun yal nañu yàlla boole ñi nga xam ne xam nañu mi ngi noonu ci Ousmane
يا صاحب الإثم لأن أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر
suñu borom mu ne yuusufa nee na yaa saahiba yi sijni tey yéen sama àndandoo ci kaso bi amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamra bu dee kenn ci yéen dana dem daa di nandal ay servir boromam ba ca mooy buur ba lii di sàngara sottil ko sàngara pour mu naan wa amma al axar bu dee ki ci des fa yuslab des na ko daaj mi ngi noonu ci ay loxoom ci tànkam ci garab fa taakulu tayru min rasi ba picc yi ñëw di lekk ca boppam ba qudiya al amru alladi fihi tastaftiyaan atte nañ mbir bi nga xam ne yéen a ngi ci doon sàkk ak ubbeeg wa qaala lillazi zanna annahu naajin minhuma noonu la yusufa waxee ca kam jortoon ne mooy aji mucc ca ñoom ñaar naka waaye uskur nii inda rabbi soo demee tuddal samay mbir ca sa borom waay muy sa buur fa ansaahu cheytaanu zikra rabbi cheytaane fàttaloo ko fàttali ko boroomam fa labisa fi sijni bida sinin yusufa sax ca kaso ba juróom kaso ab lim bida arab da koy wax diggante trois ba neuf diggante ñett ak juróom ñeent bida sinin mooy ab lim ci ay at wa qaala al malik buur ba daa di ne inni ara saba baqaratin man de gis naa ci gént juróom ñaari nag mooy baqara mooy nag yu jigéen juróom ñaari nag yu jigéen simaanin yu duuf yaakuluhunna sab'un ijaaf mu leen di lekk juróom ñaari nag yoo xam ne nii dañoo loof mooy amuñu yàpp wa sab'a sumbulaatin xudr gis naa juróom ñaari gub ci ay gub yoo xam ne dafa vert wa uxara yaabisaat ak yeneen juróom ñaar yoo xam ne dañoo wow koŋ yaa ayyuhal mala'u ay yéen notable yi aftuni fi ru'yaaya ubbee leen ma ay firil leen ma ci sama gént gi in kuntum li ru'ya ta'burun su dee ne kay nekk ngeen yéen ci gént di ko mën a doon di ko mën a firi mi ngi noonu mbokk yonent yàlla yusuf alayhi salaam woona mbokk yi ci tawxid te loolu itamit da ngay gis ne wallahi ci expérience bi ñu yàlla may ci kaso yi xamuñu ñaata lañ dajal ci ay nit ñu naan ñoom dañoo sant yàlla buñ dundoon ba dee ci ñëwuñu kaso rek safara lañ jëm yaa ngi dégg loolu mi ngi noonu loolu tax julit lu la yàlla dogal ci yow rek santal yàlla ndax tey da ngay gis ne ñu bari tey jóge nañ ci kaso jóge dem nekk président Nelson Mandela lu ko mayoon mu nekk président Afrique du Sud dafa muñ 30 ans ca kaso ba ay yeneen ak yeneen waaye da ngay gis ne tey fële laay xam ne kaso Sénégal yi ñi nit ñi ñu ngi ciy def am njàngale moo xam ne lu bari ñu nekk ci biti amuñu ko matagul ay 6 mois daje nañ fii ci daarul Quran bu suñu mbokk Habibullah si daje fa kàngam yi jiite kilifa yi jiite camp yi nekk fi yépp camp pénal camp fort beek yépp ñu daje fa ak ñoom yendu fa ak ñoom ci benn journée di fa càmbarga la nga xam ne mooy dundinu kaso bi niñ koy dundal ci diine ji waa Casamance yépp ñëwoon nañ mais tey boo duggee ci kaso yu bari ci Sénégal soo bëggee jàngal xuraan ñu lay jàngal ñu ngi nii doo fay dara ñu lay jàngal arab gi doo fay dara jàngal la sa diine ñoo bari bi ñu fay dugg xàmmewuñu neuf ak waaw yaa ngi dégg waaye avant ñu fay jóge da ngay gis ne yàlla may na leen ñuy wàcc kaamil bokk na ci le plus grand ki gënoon a célèbre avant Alioune Badara Ndao muy Clédor Sène mi ngi noonu ba muy dugg kaso ba xamul dara kaso ba la jànge avant mu fay génn mi ngi nekk di wàcce alquran kon nit da ngay gis ñii chance bi ñu am donte ne waa ji kenn ci ñoom c'est un criminel waaye gis nga yuusufa woo na leen ci tawxid dañ koy rey na am ne mën nam bu dee mu deyaale tawxid ala kulli xaal yuusufa commencé nag di di leen wax ne ay yéen yi nga xam ne yéen a ànd ak man ci kaso bi gént gi ngeen ma gént ngeen ma nekk di day kenn ci yéen ñaar ñi daañ ko libéré delluwaat ko postam mu dem continue di servir ah buur bi sàngara ba mu ko doon servir léegi la nga gis ñi ñuy tudde ustaas yu saay-saay dañuy naan sàngara aaya yu mel nii dañuy dalilu bu ko defee ñu ne la hey sangara mandi moo la yàlla araamal waaye yàlla terewul naan sangara gis nga yusuf mi ngi naan waa ji da ngay dem dox sa buur mu naan sangara ak fi suñu borom naan laa taqrabu salawaatum sukara bu leen naan fekk bu leen mandi di julli ila axiri waaye loolu ak caay-caay la mbokk julit suñu borom yàlla moo wax ci suñu diine ne ngalawaay xam leen ne sangara carte ila axiri rijsun min amali shaytan fajtanibuhu laallakum tuflihun daa di tëral ab loi loi boo xamee ne nii ci ba islam ji doog a door defoon nañ ko ñeen fukki yar mujj nañ ko def sax ci jamono yi ali wala usman la nga xam ne mooy juróom ñetti fukki yar képp ku ñu jàpp ngay naan sangara dañ la dóor juróom ñetti fukki yar loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax mu nekk nag musiba bu rëy digg naa am na ay sachet sangara yu ñu jaay cent franc di ko tasaare ci suñu école yi suñ ndaw ñi di ko jëndi di ko naan ngal ah jakarta ñu tudde ko jakarta mi ngi noonu ala kulli xaal mbokk julit jàngal leen seen njaboot yonent bi alei salatu wasalaam daana wax ni ma askara katiruhu fa qaliluhu haram lépp loo xam ne boo ci naani lu bëri mandi boo ci naani lu tuuti dafa xaraam jullit amul droit mos mos rek sàngara amul droit rek mos ko ki jël na ma mos mokki naanu litre bi yéen a yem loolee ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi subhanahu wa taala kon loolu la wax mu ne kenn ci yéen dama yusufa bëggul frustré ki ñu nar a rey ala kulli xaal mu wax rek kenn ci yéen kenn ci yéen daal dana dellu pale ba waaye kenn ci yéen daañ ko daaj fa yuslab lu tax mooy criminel yo mooy ñi def ay ji yu grave buñ leen dee rey dañu bëgg mu nekk misaal ci dëkk bi looloo tax xatta suñu borom nee na innama jazaau lazina yuharibuna allaha wa rasuluhu wa yasawna fi l ardi fasadan an yusallabu mi ngi noonu nit ki dana yéegi ci crime ci agression yéenul rek ñu cor ko jaasi mu dee mais dañ koo war a daaj buñ ko coree jaasi daaj ko ci garab mu nekk exemple mu jege ñetti fan ñépp di ko gis ngir jëf ju bon jim def mi ngi noonu soo dellu woon tey ji ci palestiniens yi am na seen mbokki naar yoo xam ne c'est des espions ar yu yu yu Israël képp kuñ ci jàpp buñ la reyee ba pare dañuy takk sa baat ci gris yëkkati la ful bi yépp di ko gis yaakaar naa yàgg ngeen ko gis boo ko gisee rek ngeen xam ne naar la traître noonu lañ leen di def mu ne nag kenn ci yéen dañ ko def dañ ko def loolu ah loolu mbokk gis nañu li taxit Yuusufa firi loolu mooy kii di xelli moom leer na mais kii na ay picc dañuy nekk ci kawam mooy wañe ne kon doomu aadama su demee ba ay picc di tag ci kawam di for rek day fekk ne dafa dee ñu noon day fekk ne dafa dee ndax doomu aadama mi ngi yenu ab deram donc bu demee deme dem ba yàgg ba dee ba am ay kenn xamul ci bopp bi loolu day ko ne dañ koy rey kon loolu la Yuusufa daal di tontu bokk na lenn mu fassiru ne li ñu wax nee na bi mu amee ki ñu war a rey daal ne ah Youssouf man de dama doon fa rek géntuma dara Youssouf ne déedéet qudiyal amru lazi fihi tastaftiyaan lii kay yàlla atte na ko ba pare te mooy lii moom dana am mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam dañu doon wax naan aruya ta'ir nee na gént gaaf la gu tiim doomu aadama mën na bañ a dal nag fii firiwuñ ko waaye buñ ko firee fokk mu dal la loolu tax ba ñuy dal saar bi waxoon nañu la ni foo génte lu bon boo ko nettali kenn boo génte lu bon dem nettali ko ñu firil la ko loolu dana dal sa kaw gis ngeen qudiya al amru alladi fihi tastaftiyan loolu kon page boobu daal di jeex ba Yuusuf demee nag ba wii tëg kam jàpp ne kii moom mooy dellu ca pale ba mu ne ko waay sa waay boo demee ne buur man nañ wax sa mbir waay man ñu ngi ma tëj ci kaso bi rek man defuma dara boo demee ci sa sa sa sa sa sa sa borom bi te wax naa la it ca commencement saar bi na leen diine yu jëkk ya xatta bi din l'islam doog a commencé arab yi daan nañ ko wax mooy sa borom bi la moom yow jaam da koy wax rab bi moom mu naan la ab di yeneen bi alei salaam nag comme diine l'islam muy dina tawxid na bu kenn ci yéen waxate sa borom rab bi del wax saydi ak mawlaaya ba kenn ci di wax abdi del wax fataaya wala gulaami ila axiri waaye yusufa ne ko boo demee neel buur bi nañ wax samay mbir waay uskur ni inda rabbik loolu itamit dañuy gis moo ko ci sabab yu dagan la bokk ndax nekk na ci xat-xat yusufa dëkk bi amu fi ndey amu fi bàyyi amu fi nijaay mi ngi noonu tooñ nañ ko tëj nañ ko ci kaso léegi nag mën a waxal kii nañ mu jugé wax lan mooy suma mbir mi ngi noonu ca dana ñëw ca kanam it ba buur bi décidé ba ne dem leen ngeen génne ko dana déet bala ñu ma génn dañ ma jugé ah nañ laaj jigéen ñi ba xam ila axiri donte ne boo delloo ci mufassiruna yu bari ay li ci topp mooy fa ansaahu cheytan zikra rabbi yàlla da koo fàtteloo mu fàttelu ko boroomam dañ naan yàlla cheytaan ne daa fàtteloo yuusufa yàlla daa fàtte yàlla moo tax mu naan na ko ay nit xettali waaye mbokk loolu mufassirun yu bëri wax nañ ko rawatina cosaanu tafsir yi muy at-tabari nga xam ne mooy ndeyu tafsir yu bëri waaye nag mbokk mufassiruna yi ka delloo ca waa ji loolu seen wax a gën a logique ca mooy cheytaani waa ji yusufa demal boo demee fàttali ma bóor bi samay mbir mu ne ko déet yow koy xanaa yëgg ca pale ba su may yëgg ca pale ba ngay génn waaye naka mu génn pale ba rek cheytaane fàttaloo ko loolu te boo ko cheytaane day fàttaloo doomu aadama yonent yàlla Moussa ànd na ak booyam biñ ñëwee Moussa ànd ak moom jën bi ñu yor naka ñu dem fu ñu tëddoon di noppalu rek jën bi génn ci mbuus mi booy baa ngi koy gis de rek fitti rek dugg ci géej gi bàyyi ci benn trait di dem Moussa ngi nelaw bëgg ko yee naka Moussa jóg na ko nañ dem rek mu dem mu ànd ak moom ñu dem ba sori Moussa ne ko waaw ana suñ jën wa mu ne ko gis nga fañ mujjoon a toog jën bi génn na ba dugg ci géej gi seytaane dong ma ko fàtteloo gis ngeen mbokk seytaane day fàtteloo mën na am suñ caam ñaanu dugg jàkka xam na ko waaye bi mu dugg jàkka léegi fàtte na ko am déet ñu ngi noonu ñaanug lekk léeg-léeg ñu tegal la sa kii nga fàtte dóoru dóor ba ci digg bi fekk fàttali nga ko waaye suñu borom mu ne deema fàttali waskur rabbaka isa nasit nga luwaay bépp zikir boo waroon a def boo ko fàttali ko def ko la ca jiitu muy julli man ngaa toog ba heure bi e ndekete man julli ma tisbaar jógal daal di julli ndekete biig julli ma ge jógal daal di julli naka noonu bi may dugg ca douche ba sànq waxuma bismillah waxal bismillah lépp lu mën a doon nga xam ko di ay azkar wazkur rabbaka idha nasit na nga fàttali ko loolu kon dañuy gis waaja moo fàtte ndax la koy firi mooy suñu borom mu ne wa dakara baada ummatin ba buur bi waxee ñu firil ko gént gi suñu borom dane waaja fàtte wal fàttaliku kon moom fàtte yusufa ñu bàyyi ko ca kaso ba li ëpp ci mu fassiroona yi wax def na fa juróom-ñaari at bida sinin def na fa juróom-ñaari at léegi nag yàlla na mën a mu génn ba yàlla na mu génn fan la ko jaarale buur bi tëdd na gént gis juróom ñaari nag yu duuf yu tëdd nag bu nekk nag bu loof tiim ko di ko lekk te xam ngeen loolu sëñ bi bariwul am tiim ko di ko lekk da ngeen noonu mu gis juróom ñaari gub yu ñu teg mu fees dell verte ak yu ci juróom ñaari gub yu wow koŋ mbir mi daal jaaxal ko mu daal di convoqué ñi nga xam ne ñooy notable yi nekk ci palais bi da leen man day dama gént gént gu yéeme ca mooy lii laa gént léegi nag yéen dama bëgg ngeen wax ma lan mooy firi gént googee mbokk léegi réunion baabu mi ngi nekk noonu ci palais bi incha allah nañ dem ba suba ñu xool ana notable yi lan la ñuy tontu buur boobee yal na yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu diine bu sell yal nañu yàlla boole min al muhsinin mi ngi noonu mbokk julit wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain xam naa maa ngi ci profité di di lebaale question yi ba suba ak jàmm insha allah comme léegi sept heures mooy jot na barakallahu fiikum ah waaw ñu ngi nekk waaw maa ngi fàttali waaw mbokk baa ngi fàttali ko kon bii moo nekkoon troisième épisode insha allah des na épisode ci kanam barakallahu fiikum